waa ñun jeunesse bi encore une fois damay ñaan rek Sénégal jàmm yàgg fa lool te wér waaw di wax kilifa diine yi nañ génn wax si lii ndax Sénégal réewu teraanga la Sénégal réewu jàmm la Sénégal mooy réew foofu la jàmm teeree waaw kon nag maa ngi masawu encore une fois ñi fa gaañu ah, ak ñi fa seen alal yëpp ñu yàqu di di jaale tamit ñi fa gaañu ñëpp ñi am blessé tamit ñu ngi leen di masawu di leen ñaanal yàlla suñu borom defal leen jàmm bu baax baax di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg lool te si barke Seydina Mohamed waaw ñu ngi ziar ñëpp di masawu ñëpp wasalaam. waaw ñun jeunesse bi encore une fois damay ñaan rek Sénégal jàmm yàgg fa lool te wér di wax kilifa diine yi nañ génn wax si lii ndax Sénégal réewul teraanga la. Sénégal réewu jàmm la Sénégal mooy réew foofu la jàmm teeree waaw kon nag maa ngi masawu encore une fois ñi fa gaañu ah, ak ñi fa seen alal yëpp ñu yàqu di di jaale tamit ñi fa gaañu ñëpp ñi am blessé tamit ñu ngi leen di masawu di leen ñaanal yàlla suñu borom defal leen jàmm bu baax baax di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg lool te wér ci barke Seydina Mohamed. waaw ñu ngi ziar ñëpp di wu ñëpp wasalaam. waaw ñun jeunesse bi encore une damay ñaan rek Sénégal jàmm yàgg fa lool te wér waaw di wax kilifa diine yi nañ génn wax si lii ndax Sénégal réewu teraanga la Sénégal réewu jàmm la Sénégal mooy réew foofu la jàmm teeree. waaw kon nag maa ngi masawu encore une fois ñi fa gaañu ah, ak ñi fa. seen alal yëpp ñu yàqu di di jaale tamit ñi fa gaañu ñëpp ñi am blessé tamit ñu ngi leen di masawu di leen ñaanal yàlla suñu borom defal leen jàmm bu baax baax di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg lool te wér si barke Seydina Mohamed waaw ñu ngi ziar ñëpp di masawu ñëpp wasalaam.